asalaamaaleykum mbokk yi teel a gaaw fukki fan ak juróom-benn ci weeru gàmm ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukki ak ñett ci gàddaay yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki fana ñett ci weeru octobre ci atum ñaari junni ak nit ak benn fukki fan ak juróom-benn dafa bokk ci lim yu fàtt yi kon tey ci gaaw bi rafetul ci dara ñaanu bis bi yow yàlla mi aji wëlbati xol yi yàlla na nga wëlbati sunuy xol jëmee ko ci sag topp. allahumma musarrif alqulubi sarrif qulubana ala taatik xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ragal leen yàlla te ngeen maandu ci seen diggante njaboot xadiis bi buxaari yi moo ko nett qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ittaqu llaha waadilu bayna awlaadikum rawaahul buxaari waxtu julli yi suba waxtoom dana tàbbi juróom waxtu bu tegal ñeent fukki simili juróom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 yal na lu yàlla nangul te nangul leen amin